bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa maa callamtana innaka anta alcalimu alhakim allahumma callimna maa yanfacuna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 ba tax ñu di ko tàllal suñu loxo di ko ne allahumma anta salaam wa minka salaam ilayka yaudu salaam fa xayinna bisalaam wa duxinna aljannata daaraka daar salaam amin ya rabbal alamin buur yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla nga ñu may jàmm mboolem jàmm ya doomu aadama yi nekkee fa yow yàlla la bàyyee mboolem jàmm ya doomu aadama yi di nekkee fa yow yàlla la ñuy dellu ndegem looloo fi nekk ba tax na ñu nit ñu lay ñaan yàlla nga ñu may ñu dund ci jàmm lañu nekk di jublu ci nii la tax ñu di ko def yàlla nga ko def mu doon jàmm yàlla nga ñu jàmmal bés ak gannaaw bés ba yàlla nga ñu may jàmm suñu réew suñu njiitu réew ak ña koy jàppale ci liggéey bi yàlla nga leen jàppalal yàlla nga leen woyofalal yenn bi ñu di la ñaan allahumma aminna fi awtaanina yàlla nga ñu may sécurité suñu biir réew waslih aimmatana yàlla nga yéwénalal suñu njiit ñi wa wulaata umuurina ak képp koo xamante ne méngoo na suñuy mbir yàlla nga leen aar yàlla nga leen sàmm nga roof leen xolu yërmande ba ñuy jëmale ci askan bi ñu lay ñaan wala tusallit alayna man laa yaxaafuka wala yarhamna yàlla boo ñu xirtal ku ñu du yërëm du la ragal yow yàlla te du yërëm sambindaa foo ni yàlla boo ñu xirtal njiit yu ni mel yàlla nga def suñu njiit yi ñu doon ñu nooy xol yàlla nga def suñu njiit ñi ñu doon ñu bëgg si seeni askan yàlla nga leen woyofalal yen bi waaye askan bi tamit yàlla nga def ñu doon ñu bëgg seeni njiit yàlla nga rataxal diggante njiit ñi ak askan bi rataxaay bi nga xamante ni dañuy ñemewante dañuy bëggante dañuy soppante kenn ku nekk di yéene sa moroom jàmm amin yaa rabbal alamin ndax réew mi fu mu ne nii loolu la laaj te loolu la soxla leneen lu dul lii soxla wuñu ko ba tax na yéen a ngi fàttaleku ci suñu téere bu mag di alquranul karim buñ demee xool ca suratul mariam dinañ fa fekk euh, soxna su baax ci jamono mu doon jaamakatu yàlla bu sel way wuy juróom bu góor ak wuy juróom bu jigéen ñu doon jaamukati yàlla yu sel ba tudee nañ leen saar ci alqur'aan mu nekk suuratul aali imran saar bi nga xamante ne mooy famille imran te suñu maam ju baax sayyidatuna maryam alayhi salaam mu bàyyee ci famille boobu mu doon koo xamante ne alquran rekonde tar na dundam bem ko tuddee saar waaw tuddee Mariam saar mu doon soxna soo xamante ne yàlla gërëm na mu dundee ba tax yàlla daal di def ci dundam mu génnil ñu miracle boo xamante ne alquran tudd na ko te day des di ko tudd nit ñiy desandi fii di ko jàng ba keroog àddina di tukki mu doon miracle boo xamante ne lakaka may mooy jàmm bu mu opte lakaka may mooy jàmm bu mu nekkee ci jamono lakaka may mooy fegu bu mu fegu woon opte ne moom day doon nitu jàmm day jàmmal paay day jàmmal meer day jàmmal moromaam yi day jàmmal frère am yi ak sœur am yi moom daal du fi nekk di doon kuy lor nit ñi alayhi salaam ba tax na keroog ba ko yàlla bëggee jox miracle ba mu war a feeñal jamono la ci xew yépp ak nu mu demee alquran nettalil ñu ko ci suratul maryam keroog bam doon xew yàlla daal di ko nettalil yonent bi ci téere ba mu ko jox jullit ñi ñi di ko jàng bi ñu àgg ci béréb bi nga xamante ne mooy fañ leen bëgg a waxtaanal ci waxtaanu fajar bi di jaar fii ci réew mi FM 97.5 ci waxtu bi su ko defee nañ leen bokk dugg ci saar bi di sotul Maryam ñu xool ana ban miracle la yàlla buur bi tabaraka wa jox suñu yaay ju baax jooju wala suñu maam ju baax jooju di sayyidatuna Maryam alayha salaam ginnaaw bu mu lëmbee penc bi ñu ne ko waaw yow soxna si ah bette nga ñu de yow sa muuraay bi daal ndekete lii nga naroon ah soxna si yow daal bette nga ñu de fegu bi nga fegu nii ndakete yoo li nga naroon ah yow soxna si bette nga ñu de bette nga ñu bu baax a baax a baax bette nga ñu lool kenn da musuta foog ni sa fegu beeg sa muuraay beeg sa isolé bi nga isole nit ñi fii ngay mujj ñun bett nga ñu de yàlla ne ko loolu waxu nit ñi la bu leen faale ca lu ñuy wax rumeur yàgg na fi waaw rumeur du tey ku baax ku ne yaa opte mbaax na nga sóoraare rumeur ba ñëw dal sa kaw te doo ci mun dara waaw lenn rek ngay muñ pour génn si bañ leen faale bañ leen tontu wala nga ne pat waaw ah, boo fi nekkee di leen tontu nag defuma ko du man dewuma fag yaay sonn rek ndax su boobaa yow kenn te kenn mënuta layal boppam bi génn ci lala nit ñi di tuumal mbooloo buñ buñ la tuumalee la wolof yi la rek ku ñëpp tufli nga tooy waaw ah, ku ñëpp tufli nga tooy xepp boo tooyul tamit di nga géjëf de ok kon yow kese rek mënoo layal sa bopp bi génn defuma ko demuma fa du man du la tax a génne yàlla rek moo lay setal jalla waala ba tax na keroog ba soxna si daal di andi xale bu góor woo xamante ne xameewuñu soxna si jëkkër xamuñu ko borom kër ah ñu ne ko waaw soxna si lii moom doy na waar kat moom loxo dem na dar na gémmiñ de waaw kañ yàlla ne ko ak luñ la munti wax daal fa kuuli na nga lekk washrabi na nga naan wa qarri aynan na nga dalal sa xel dama lay wax ni nanga lekk nga naan seen wax yi mboosóor seen seen seen remor yi la yóbbu fen bu mu la tax a lekk bu la taxa a bañ a naan waaw bu la bañ a bu tax a bañ a lekk bu la tax a bañ a naan nanga lekk fa kuuli lekkal washrabi na nanga naan waaw lekkal naanal wa qarri aynan na sa xel dal waaw bu fi nekk di triste sax kanam ku la xool ne waaw kii liñ koy wax moo ko tristeloo ni wala lu mu andi ni moo ko tristeloo ni jaru ko wa qarri aynan na sa xel dal na nga leeral sa xar kanam sa bët bu fa kenn gis njaqare wala tiitaange fa imma tariyanna min al bashari ahadan amaana nit dina ñëw di la géem a laaj di la géem a questionné waa affaire bi ni mu demee foo jëlee lii ki kuy bàyyam di la wax ne ko fa quuli nanko ko ne inni nazartu lirrahmani sawma man dama nëzër dama jàpp idda dama dëxalantek sama borom di arrahman borom xéwalu àddina bi dama dëxalantek moom ne fa lan ukallima al yawma insiya tey du ma wax ak bépp mbindaafoon benn mbindaafoon du ma wax ak nëzër boobu laa jàpp dëxalantek sama diggantek sama sama borom gis nga jamono day àgg foo xamante ne noppi mooy tontu waaw boo fi nekkee di wax wax lay bari rek waaw nga def lu ne weŋ ñu di la wax nga ne dangay tontu fa fa la ñuy mujj ak yow waaye gis nga boo ne pat mais pat noppi boobu ngay noppi loolu mooy doon sa tontu yow waaw moo tax mu ne yàlla ne ko lekkal nga naan. ku ñëw ci nit ñi géem laaj waa lii foo ko jëlee kuy baayam ne ko man tey jii dama dëxalanteg sama borom ne du ma wax ak saw mu fii du ñàkk a du ñàkk a naan falan ukallimal yawma insiya wax ak nit la ndax bopp aay bi yàlla ne ko lekkal naana kon fii mu ne inni nazartu saw sawman man dama nisër sama digganteg sama borom koor koor woo xamante ne falan ukallimal ma insiya du ma wax nit loolu mooy sama koor dinaa lekk dinaa naan may woor bi may woor mooy ñàkk wax ak nit ndax li ngeen di wax xamuleen ci dara fekkewu leen ko xamuloon nu mu demee ngeen ma ciy tuumal waaw léegi nag buur yàlla di nettali yonent bi mu ne yonent bi ne ci bi fa atat bihi qawmaha taxmiluhu mu daldi di dikkee xale bi andi ko ci xeetam andi ko ci waa këram andi ko ci pénc mi bu mu ñëwee ñëpp nan moo hey waa yow Mariam yow ah xaalu ñu ne ko yaa Mariam yow Mariam laqad jiti shay'an fariya laqad jiti shay'an fariya ani nga loo xamante ni kenn xamul luñ koy tudde lii moom kenn xamut lu mu mel ñaawteef bi foo ko foo ko jële ñaawteef bi noo ko mën a defee waaw ah, ñaawteef bi nga def ba am lii ñaawteef bi nga def ba lii nekk nii sa loxo lii foo ko jëlee mais yow da nga sa bopp waa penc bi ñooy wax lii Mariam ñu naan ko yaa uxta xaaroon yow mi di séeri xaaroon xaaroon mi nga xamante ne fu Muusa naane dina fa naane yow mi nga xamante ne yaay séeru xaaroon sa frère di ku baax sa mbokk bi di sa sa mbokk bi di xaaroon mu doon mbokk bu baax yaa uxta xaaroon yow mbokk xaaroon yow séeru xaaroon bu baax mi maa kaana abuki imraa saw in yow sa wayjur bu góor du kenn lu bon luñ ko xamee wa maa kaana um wa maa kaanat ummuki baxiya sa wayjur bu jigéen nag kooku nag ku fi di taxawaalu tamit de waaw nga tagg nañ ko ne ko frère bu baax mooy sa frère góor gu baax mooy sa frère te Haaruun la tudd waaw nabillahi Haaruun kooku di sa frère ku baax mu doon yónent ay ah, yow ni nga mun a sàggane bi andil ñu xale bu góor bi nga ëmb ni foo ko jële xale bu góor bi nga tiini foo ko jële yow sa frère di ku baax di ku ku yiw mu di yónent teg si ñu ne ko sa waajur bu góor moom kooku musuñu koo xamee dara lu ñaaw kooku moom Imran musuñoo xam ak Imran dara lu ñaaw Imran lu baax dong lañ ko xamee ñu tegal ko ci ne nag wa ma kaanat ummuki baxiya sa wujur bu jigéen nag kooku noonu musuta taxawaalu fenn kooku luñ ko xamee bokkul ak yow li nga def ni gis nga waa penc bi ñooy wax de te Mariam nee na leen nii inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al yawma insiya ba léegi Mariam mo ngi ne pat coow li bu mu bëree nag mu xam ne ñii foog ma tontu leen fa asharat ilay sayyidatuna Maryam daal di joxoñ liir bi mu joxoñaan leen liir bi dafa joxoñ liir bi rek ah buur bi daal di déclencher message ba liir bi wara a ak kilifa ya doon xas yaayam di ko wax wax ju naa ñaaw fa asharat ilay mu daal di leen joxoñal liir bi xaalu kilifa yi ñu ne ko kayfa nukallimu man kaane fil mahdi sabiya nu ñu mun a waxee ki nekk ci berceau nga du ñu ko joxoñaan loolu si jublu kii def ñu mun a tontu kii daa mun a wax ñun ki luñ koy wax ba mu di ko dégg mu di ñu tontu Mariama bu ñu fontoo de yow nga def lu ne weng bu suñu jamonoy teel nii lañ koy waxee yow nga def lu ne weng ñu di la wax amoo dara loo ñuy joxoñ lu dul liir bu tooy bi kayfa nukallimu man kaana mahda sabiya kayfa nukallimu man kaana fi l sabiya nu ñu mun a waxee liir bu tooy ba nekk ci berceau ci laltaay bu tooy liir bu tooy nga xamante ne bu seddee tamit sax mais léegi la gane si àddina nga bëgg ñu wax ak moom Mariama nag yóbbi nag xoolal li ngay def mu ne part waxul yàlla nar a dégager message ba liir bi war a kilifa ya wax lii sayyidatuna maryam alayhi salaam inni abdullahi aataani alkitaaba walam yajcalni wa وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم mbokk yi Isa bun Maryam alayhi salaam mu daldi yëkkati message bu ñu jàng ni gannaaw bu ko kilifa yi waxe gannaaw ba kilifa yi waxee yaayam kayfa nukallimu nu ñuy waxee koo xamante ne mu ngi doog gane ci àddina mu di liir bu tooy xepp noo bëgg ñu wax ak kooku kayfa nukallimu man kaana fi l sabiya ana nu ñu mun a waxee jëmma joo xamante ne mu ngi doog a gane si àddina nga bëgg ñu wax ak lu ñuy wax moom qaala inni abdullah mu ne man jaamu yàlla la léegi isa moo war a partager message bi ak kilifa yi inni abdullah mu ne man jaamu yàlla de aataani alkitaaba jox na ma téere wa jaalani nabiya mu def ma ma doon yonent wa jaalani mubarakan aynama kunt def na ma ma doon ki am barke fa ma munti nekk ma ngi ànd ak sama barke wa awsaani bi salaati wa zakaati ma dumtu hayya mu digal ma nag yàlla mu digal ma mi nga xamante ne mooy sama borom mu jox ma téere def ma yonenti mu def ma ma doon ki am barke fi ma munti nekk waaye mu digal ma may julli di ko jaamu waaye may sellal ngir moom waaw may génnee azak waaye ma doon koo xamante ne damay laabal sama bakken bañ koo taqal ci lenn ci xeetu bokkaale wala jaamu xerem maa dumtu hayya feg maa ngi dund nag waaw feg maa ngi dund du ma bokkaale yàlla dara te lam ma digal dinaa ci nekk muy julli ak sellal sama bakkan wala du joxe azaka fekk sama ruux baa ngi man waaw digal na ma tamit wa barram bi walidati wa lam yajalni jabbaran shaqiya mu digal ma tamit ngir ma topp ma sàkku ngir mànde sama wayjur bu jigéen waaw gis nga fii Isaa turu wayjur bu jigéen la jëfandikoo waaw wa barran ngir ma topp wa barran ngir ma tënku wa barran ngir ma topp tànku bi waalidati sama wayjur bu jigéen ma topp tànku sama wayjur bu jigéen ma sakku ngir mande sama wayjur bu jigéen walam yajalni jabbaran shaqiya musal na ma nag yàlla musal na ma defuma ma doon ku jàmbaare nga xamante ne njàmbaare ba muy doon da koy sankuloo day tax mu doon ku texe di yàlla ma noonu de defuma jàmbaar boo xamante ne sama njàmbaarte bi daf may sankuloo defuma noonu de mbokk yi la soxla ci aaya bi nag fa la ñu toll ni wasalaamun aley wasalaamun aleyya wasalaamun aleyya isaa nee na jàmm ñeel na ma nitu jàmm laa de nitu jàmm dong laa nag waaw nitu jàmm man ak képp ku mën a topp nitu jàmm lañu a yow ma wulitu keroog bu ma ganesee àddina jàmm woote te jàmm lay àndal sama kuddu bi ma yore jàmm dong lay ràcc ràccul dara lu dul jàmm sama lépp jàmm la yonent Yàlla Isa alayhi salaam jàmm boobu muy woote puso sax musu koo garde puso puso lu gën a tuuti puso sax musu koo garde ci moomeela alayhi salaam moo tax mu ne alayya jàmmal ñeel na ma nitu jàmmalaade yàlla daf ma bind mooñaale ma ma doon nitu jàmma mag képp ku ma topp yow ma wulitu keroog bi ma ganesee àddina jàmma laa musa woote sama kuddu jàmma dong lay ràcc wa yow amuutu jàmm dong lay woote keroog bu ma dekkee tamit jàmm dong nag ah, woote wu ma leneen lu dul jàmm fekk maa ngi dund jàmm woote keroog bu ma faatoo ba ma yeew jàmm woote wa yawma ubhasu hayya ak keroog buñ may yëkkati ñu di ma dekkil jàmm dong woote keroog bi ma ganesee àddina jàmm la sama kuddu bi di ràcc keroog bu ma gën a see àddina jàmm dong laa nekk di woote la paix salaam keroog bu ma faatoo jàmm dong lay woote tamit yowmal qiyaama bu ma yàlla di dekkiloo jàmm lay woote zaalika isa bun maryam alquran nee na kii joxoñal nii kii ma leen di rencontrel histoire am nii kii mooy Isa doomu Maryam waaw li ma leen rencontré nii bébé bu doon wax ci berceau bi Isa bun waaw fa asharat ilayhi Isa bun Maryam la bi ku mu joxoon ci berceau bi kooku mooy Isa bun Maryam kilifa gox bi ku ñu ne kayfa nu kallimu man kaana fil mahdi sabiya kooku mooy isa bun maryam moom la payi ne nu ñuy waxee jeune liir bu nekk ci berceau kooku mooy isa bun maryam isa bun maryam moo ne man de jaamab yàlla laa jox na ma téere ngir ma ko attewoo ngir ma di ko niitoo kooku mooy isa bun isa bun mariam moomu moo ne yàlla def na ma yonenti waaye def na ma ma doon ki lambok barke fu ma munti nekk kooku mooy isa bun mariam kooku mooy isa bun mariam ki wax ne yàlla digal na ma may taxawal julli di génnee azakka waaye naa laabal sama bakken bañ a jaamu xirim bañ a bokkaale yàlla fekk maa ngi dund kooku mooy isa bun mariam zalika isa bun mariam kooku moo ne wa barran bi walidati yàlla daf ma digal ngir ma sàkku ngir mande sama wéyjur bu jigéen walla mi yaj'al ni jabbaran shaqiyan defuma ma doon jàmbaar bi nga xamante ne day ànd ak mbewte ba tax na sama njàmbaarte boobu mun na maa sankuloo zalika isa bun mariam kooku mooy isa bun mariam isa bun mariam boobu kooku moo wa salaamun alayya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubaxasu xayya dalika isa bun mariam moo ñu ne jàmm ñeel na jàmm dong lay woote la paix moom lay lal di ko woote di ko opte keroog bi ma feeñee jamono ak keroog bi may faatu ak keroog bu ma yàlla di yëkkati jàmm dong lay musa woote si ñitti béréb yi daalika isa bun mariam kooku mooy isa di doomu mariam yàlla ne xawlul xaq baat bi mu wax nii mooy baat bu dëggu mooy baat bu toog mooy baat bu samp mooy baat bu dëju waaw lii mooy baat bi nga xamante ne amul dara lu ko mën a yëngal waaye nag alladi fii yamtaruun ah baat bi baat bu dëggu la de waaye gars ñu ngi ci jiixi jaaxa de ku ñëw wax leneen ku ñëw bind leneen ku ñëw jàngale leneen waaw baat bu dëggu bi yonent yàlla Isaa wax gaay yi jël nañ ko cuub nañ ko suub nañ ko def nañ ko lu ne ba kenn xamatut luy len mbindum alquran daal moo ñu wax discours ba Isa bun Maryam wax bokk ci diskuur Isa bun Maryam bi léegi mu ne maa kaana lillahi déet mu ñeel yàlla an yettaxida muy jàpp min waladin meññeef wala doom subhaanahu mboolem xeetu cellaange ñel na ko moom yàlla daf di buur bi nga xamante ne ida qada amran bu namee dara bu dogalee dara fa innama yaquulu lahu la wax loolu da ko ne kun nekkal fa yakun loolu daal di ne wa inna allaha naka yàlla rabbi mooy sama borom wa rabbukum mooy seeni borom fa abuduhu na ko jaam li ma wax nii discours bi ma leen wax nii haada siraatum mustaqim lii mooy yoon bu jub bi nga xamante ne amul benn déng-déng amul benn ndëngte amul jàddukaay yoon bu jub xocc la moo tax yow julit bu bay jàng faatixa bi nga àgg fi nga war a ñaan danga naan yàlla ihdina siraat al mustaqim siraat al mustaqim boobu la isa bun mariama wax ne haada li ma leen wax nii haada discours bi ma jox nii siraatun mustaqim mooy yoon bu jub bi nga xamante ne képp ku ci tegu du la yóbbu gauche du la yóbbu droite du la yóbbu ci kaw du la yóbbu ci suufa suuf ca yàlla lay yóbbu direct kon ndegem yonent yàlla isa alayhi salaam moo woote jàmm ci jamonoom moo woote jàmm ci boppam ñun jullit ñi alquraan wax ñu na yonent yàlla isa woote jàmm ci jamono ña nekk ci diine masih yi ñoom it ñuy woote jàmm xoolal seen bés bu jotee képp koo gis buy dem jàngu ba boo ko xoolee da ngay xam ne kii ku fonk li mu nekkee la dañuy solu rafet jekk macha allah ñun loolu la ñu xam suñu réew waxtu ngalax bu jotee kenn ku nekk di yëkkal sa morom ñuy nuyu suñu séer bu baax bi ki ñu fi nekkal di soxna Claire ñu ngi lay féliciter ci geste bu noobul boobu ndeysaan yana la yàlla fay yow xam nga man xam naa sama gars yi xam nañ yan na nga ko yàgg a def waaw loolu mooy suñu réew ak ñeneen ñi baaxoo di jëflante xusnu taamul jëflante bu rafet bi mel ni nuñ koy defee léegi-léegi nga dem ci yenn dëkk nga fekk benn armeel bi nga xamante ne jullit ñéeg ñi nekk ci jàngu bi ñëpp la ñuy bokk di denc seeni néew ci bérab boobe ñiy dem ba ñu sëy léegi-léegi nga gis ay famille yoo xamante ne dañ la naan ki yaay ji jullit la waaye paa bi ci jàngu bi la bokk mais ñu sëkk loo xamante ne kenn mënu koo ciment boo xamante ni kenn mënu koo tas kenn mënu koo wow na ba pare li fi nekk daal peinture ko jekkal ko di ko di ko di ko sàmm mu bañ a toj mu bañ a xar ndax bu tojee ba mu daanu rek la si ginnaaw noonu yi dañ koy séen te su boobaa dañ ñuy reetaan kon jaru ko te waru koo jar waaw bu dee wax moo koy tax a toj nañ leen ko bañ a wax bu dee jëf moo koy tax màbbuloo nañ leen ko bañ a jëf lépp luy ñoŋal ciment boobu tabax boobu lépp lu koy ñoŋal lépp lu koy jekkal lépp lu koy rafetal bu dee wax la nañ leen ko wax mu gën a rafet bu dee jëf la nañ leen ko jëf mu gën a taaru loolu la ñu xam te loolu lañu ñu war a def su ko defee ñu xamee ko noonu waaw suñu uh, wajur ju baax Abbé Jacques Seck ndeysaan jamonoom aaya bi bu ko bu ko bu ko jàngee danaan alquran moo làbbal mari mu daal di si àndal eh, loo xamante ne boo gisee mu di ko def dangay xam ne kii daal nitu kese la waaw ñam koy defandoo ak si kanamu ñum ko mos a def ñoom xam nañ fi may waxee waaw Abbé Dia Seck ndeysaan waaw su ko defee loolu la Sénégal xam nañ leen sàmm suñu teraanga bi ñuy bàkkoo fépp fu ñu dem waaw yu teraanga ñu dul sénégalais sax teraanga bi moom arab yi ñu ngi koy wax naar yaa ngi koy wax allemand yaa koy wax foo dem ci àddina la pays de teraanga teraanga teraanga teraanga boobu noonu nag bu fekkente ne melokaan bi ñu nekkee nii dinaa dem doo dem dina dem du dem mais loolu moo koy taxal yàqu est-ce que jar na ko jaru ko nañ leen ko sàmm nañ leen ko sàmm nu mu gën a rafetee rek na ko yàlla yombal mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñaan yàlla suñu borom lu jub ci kàddu yi ñu santee ko yàlla li si dëng nag ñu ngi koy jéggalu matari doomu aadama la ndax thème bi moom dafa sensible lool lool lool lool lool da koy wax émotion danga koy wax ak fierté ak mbégte ndax jàmm daal boo koy waxtaanee doo am benn stress waaw sa xol day fiix nga xamante ne loolu moo war a nekk lu ñu war a installé ci xol yi ci bëri yi ci bërëb yi ci fépp su ko defee ñu sàmm ko ñu bañ ko ñu bañ koo ñu bañ koo salfaañe ñu bañ a andi loo xamante ne da koy yàq waaw mbokk yi ñuy tas xibaar ñu ngi nii taxaw fas yéene leen jox xibaar si nasaraan ñu nar leen jébal béréb bi nasalullaha taala an yaxfada bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahuma aati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha fa nicma almawla wa nicma annasir amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa zikri alhakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha lii wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh